ginnaaw bu ñu musoo ci seytaane suñu noon bu màgg bi ñu ngi tàmbali suñu wax ci turu borom bi subhanahu wa moom mi ñu may kàttan may ñu mën ak wër ba ñu teewaat fii si suñu émission boobu di jotaayu diine ñu ngi julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e, di ñaanal ay saxaabaam di ñaanal suñu way dawli yi ñoom ñëpp yàlla teeru leen malaanu yërmande di leen nuyu yéen ñëpp ñu ñuy seetaan di teg nuyoo bi suñu loxo waajur Adja Maam Yaasin di ñaanal yàlla waa HLM ci àll yëpp di leen di nuyu suñu techniciens yi ñu jàkkaarlool di nuyu suñu gan gu màgg gi nga xamante ni moom lañ fi dalal tey ci suñu émission bii di jotaayu diine mbokk téléspectateurs yi tey dañu indi gan goo xamante ni ñu ngi koy wax Oustaz Alioune Ciss muy euh, jàngalekat fii ci Thiès nekk imam nekk tamit macha allah koo xamante ni li ko war ci waar wi mi ngi koy bay mi ngi bay wàllam ci waar bi ndax islaam tool la boo xam ne yaatu na euh, moom am na ci wàll goo xamante ni mi ngi koy bay di ci def kem kàttanal macha allah yàlla na ko yàlla may wér ba mu yàgg taxawe taxawaayam bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy taxawee ci islaam euh, muy sama càmmiñ di sama oustaz di sama lépp maa ngi koy ñaanal di nuy soxnaam sama bàyyi kër ga ak njaboot yëpp dañ koy bayyi mu nuyo ñu soga a dugg ci tembi oustaz bismillah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah comme ni ko sunu mbokk mi Sadiya waxe ma ngi tuddu oustaz Alioune di jangale lekat comme ni ko waxe ma ngi nuyu ñep di nuyu ñima ma lool nga xamne ñoy technicien yi di nuyu auditeur yi nga xamne ne ñoy ñooy ci express salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. kon mbokk téléspectateur Prestige TV yéen ñi baaxoo seetaan seen émission jataayu diine euh, dañoo dëgmal événement boo xamante ni bu rëy la ci ñun jullit événement boo xamante ni euh, fête la ci ñun muy ñaari fête yi nga xamante ni am nañ ko muy korité ak tabaski dañoo dëgmal benn bi bu mag bi. mu nekk feetu tabaski xëy na am na ñoo xamante ni. ku melni saare ne caame ni ñom tabaski liñ ci xam rek moy ray ga ñuy ray xarmi xëlwa yaak lakk yaak yeen musal yaak yeneen ak yeneen yi ñu def ñom mom xam nañ ko bu baaxa baax ñom loolu lañu jàpp ni moy tabaski motax tay ñu tek fi oustaz Alioune Cissé pour mu leeral lan ni est est-ce que loolu mooy tabaski ndax tabaski ray la rek nos lek wala tabaski lan moy ille bi lan moko waral ci ñun jullit yi bañ koy def chaque année diko ko même période bi lan moo waral loolu la ñuy njëkk a laaj Oustaz Alioune Ciss ba ñuy dugg ci yeneen question yi Oustaz. bisimilah wasalaatu wasalaam rasulillah bu ñu xoolee ci histoire tabaski dañ koy delloo bi ci sunu maam Ibrahim aleyhi salaatu wasalaam Ibrahim aleyhi salaatu dund na at yu baree baree bare ci dundam yàlla mayu ko doom boobu mook aawam bu ñuy wax saarata yalla baxé ci histoire bi nu mu yépp sarata ñu am mo amoon jamm bi ñu tuddé hajara mu xol situation borom kërëm ak situation kër gi xamné ne ñu ngi dund lu yàgg amuñu njaboot mu daldi ko né légui té ma may la ki nga xamné mom moy hajara nga denc ko mu nekk sa soxna waaye maye bobu ñuko may hajara barkel na ndax Haajara yàlla may ko doom bu ñu tuddee Ismaayil alayhi salaatu salaam Ismaayil moom alayhi salaatu wassalaam yàlla wax Ibrahima ne ko jël ko mook yaay ji Haajara nga yóbbu leen ci benn suuf soo xam ne amul mbéy amul dara daanaka amul sax ñu fa dëkk foofu nag moom la ñu tuddee Màkka tey fii suuf soo xam ne daal su su doy waar la waaye ismail ak xaajara wàcc ci suuf si boobu ismail liir la borom bi subhaanahu wa ci kàttanam am yu kéemaan yu bari mu ci génnee ndax fa la ndoxu zam-zam génnee fa la safa marwa génnee yooyu yëpp ci tukki boobu la génnee waaye ismail dem ba commencé dëgër yàlla ne ibrahim sa benn doom ji laa bëgg nga rey ko maanaam rendil ma ko nga jegeel ma ko ibrahim alayhi salatu wassalam xamne ki wax ak mom mooy boromam mom mi ko may mok koy laaj kon ibrahim andenggam ak telo and ak ngam te lolé ibrahim ma ci gentu la ko gise mu wóor ko yalla ay wax ak moom ah ma i'timad man sukkandiku ci gentu bobu pour def li ko borom subhanahu taala sant lolou ñepp xam nañu ne lu reuy la ndax sa doom benn doom ju góor dund nga lu ëpp ñeent juróom-ñeent fukki at sa borom ne la reel reel ma nga jegel ma ko nga nangu lolu reey la ah mu dem wax ko ismail ne inni raaytu fil manami anni asbahuk ismail yalla de wan na ma ci gentu ne dal war dama dama lawara wara e, jegel mom borom subhanahu wa taala maanaam dan la war rendi ngir yalla ah ismail tam ànd ne ko abati fal matu umar yalla yo papa lila yalla sante jaru ñi jelu ginaaw def ko rek kon lolu itam bok na ci cadre yalla bobu euh ñu dem ci soxnam ne ko ah, ben bima yalla denk de neena na ma nangam lan mo ci sa gisin soxna se ne ko awma gisin yàlla lu musantane rek non lañ koy doxale kon bu ñu xoolee ñetti étape yoy yeb moy nanguni Ibrahima nanguna dogal yalla waaye Ismaayil tam ñëw nangu dogal yàlla soxna si Haajara nangu dogal yàlla loolu lu ñu yónnee rek ne kon histoire bi foofu la commencé ba Ibrahima jële Ismaayil ba teg ko ca xeer wa takk bët ya ndax bañ cofeel ak yërmande jàpp ko ba mu doom ji gënal ko yàlla mu bañ defal yàlla lu mu bëgg mu takk ay bëtam waaye mu jël paaka ba daas ko ba mu ñëw nga xam ne buy rey doom ji day gaaw lool te du metti ci moom waaye ba mu defee loolu rek ci la yàlla yebale jibril ne ko demal andi benn kuy ca biir aljana nga tegal ko ki nga xam ne moom mooy ibrahim mu remplacer ko ki nga xam ne mooy ismail kon nga gis ne borom subhanahu wa ci kàttanam mu doon xool di test ibrahim moo tax yàlla subhanahu wa taala feeñal ne wattaxaza allahu ibrahima xalila ibrahim day daa bokk ci ñi nga ki nga xam ne nag dëgg-dëgg moom jàppee naa ko xarit ndax loolu lu mu def amul kenn ci doomu aadama yi ku toll woon tollooy boobu nga mun kaa def kon foofu la commencé xo kuy moomu nag ñu remplacer Ismaïl moo wéy ba tey moo continuer ba tey ñuy ñuy tabaski. macha allah oustaz loolu leer na kon loolu liñ fay jàngat mooy nangu gi ak gëm yàlla gi ak ragal yàlla gis euh, oustaz ndax comme ni nga ko waxee nga toog ay at di xaar doom. doom ñëw sa borom subhanahu wa taala jox la ndigal pour nga rey ko nga nangu ci saa si ndax xam nga ni waxu yàlla moom samir na euh, après wa ataana moo ci topp boo déggee rek da ngay jëf ñu wax ko doom ji doom ji aussi xam ni moom du papaam rek mooy ki war a ragal yàlla mooy ki war a gëm yàlla waaye xale aussi dina nangul yàlla dina gëm yàlla mu d'accord ci waxu yàlla boobu soxna si aussi xam ni jigéen dafa war a moom tamit nangul yàlla dafa war a topp yàlla ci ay santaaneem to dégg naa jëfe naa moom i mu nangu sey oustaz loolu am na solo léegi ginnaaw nangu googu ba loolu di dem di dem ba ñëw ba tey jii ñun ñuy tabaski ñun tamit ci xar moom nga xam ne moom la subhanahu wa taala remplacé woon kan la war ban jullit la war pour mu rey xar moomu loolu aussi jar na leeral parce que dañuy seetlu ni day am ñoo xamante ni duñu am lu ñu jëndee xar mais da leen jaral lu ne dina leen jaral bu dee dañuy dem si banque yi di def say pré événement lépp loo xamante ni dañuy dem jëndi xar di ko fay ak intérêt am ñoo xam ne dañuy wër ci nit ñi di ñaan ak di leb ak lu ne pour parce que amuñu duñu jëndee xar am ñoo xamanteni am nañ ko te duñ ko def ay comme lu melni ni sama moroomu jigen ni ak yenen légui lool wala ku amagul borom kër wala goor bu amagul soxna ñom duñ ko def légui ma dañ wara lé danga da nga wara léral aussi kan la war kan moy ki nga xamanteni dafa wara ray rey ah. ah ki wara ray rey xar moom mooy bi nga xamne julit na masoor na waaye man ko ñii lii ku mu daj ci moom rek tabaski war na la tabaski bàyyi itam nag kenn du ci sukkandiku tabaski yaay itam kenn du ci sukkandiku soo mënee rek dangaa war a def mën gi nag dafa am nu mu tëddee insaan dañ naan mën na mën na rek mais dafa am nu muy tëddee lan lay tëddee mooy man bi day nekk loo xam ne kii tabaski wóor na ko ne su jëndee tabaskeem dina am lu mu dundee ci ginnaaw jënd boobu wóor na ko ne su jëndee tabaskeem du am gàllankoor ci ginnaaw bi ordonnance du ko téye jëm faj ku ku feebar du ko téye yi rek les këram par bés du ko téye euh, ki nga xam ne nag mu wóor na ko ne moom am na lu mu denc mais jotagu ci kooku mun nañ mun nañ ko wax ne mun na abbu bu tabaski parce que am na lu mu denc mhm. mais ki nga xam ne dencul dara moom yaakaar lu dul tabaski passé muy kër kër yi di sonn pour mun koo fay kooku moom tabaski wàcc na ko kon képp koo xam ne daal mënoo tabaski tabaski wàcc na la du par force parce que yëf yi du aada du ay sama morom def nañ ko war naa ko mën a def waaye ay ndigal lay koo ca yàlla jaamu yàlla mhm. jege yàlla la loo xam ne nag jaamu yàlla jege yàlla la nag loraa amu ca ndax yàlla subhaana taala moo ñu wax ci aaya ne fattaqullaha mastataatum na ngeen ragal yàlla seen kéemtalaay kàttan maanaam jaamu yàlla bu leen yàlla mun ci sant rek nangeen ko defee seen kéemtalaay kàttan mais bu leen ko defee ci neneen façon boo xam ne ay loraange moo ca feeñ ndax islam la naan laa darara wala diraara bul lore waaye itam bul loru loolu mu nekk benn règle générale boo xam ci l'islam lépp lay doxal rek teg ko foofu duma ma loru ci li may def waaye duma ci lore yaakaar naa ne loolu loolu leer na nàññ ci ne ki mën rek la lislaam sant waaye ku mënul lislaam teggin na ko ko loolu sax moo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaaxe ñiy tabaski ñoom ñu am lu ñu yëkkati ci la ñuy tabaski jox ko si yeneen mbokk lu tax parce que am na am na ñoo xam ne mënuñu ko sallallahu alayhi wa loolu leer na oustaz hmm. kon sama mbokk jigéen yi nga xam ne dañu taxawu seen borom kër yi ko amul nañ ci bàyyi xel hmm. ndax am na ci ñoo xam ne seen borom kër bu ñu amul xar jaral na leen sax fay dem seen kër yi waajur hmm. am na ci ñoo xamante ni dañ leen di fitnaal fitnaal ba nga seen borom kër duñu xamante sax lu ñuy def am na ñoo xam ne même xar mu ndaw sax dañ koy kaas xar mu tuuti sax dañ koy kaas ni ko danga maa yeblu ci koñ bi même xar mu ndaw da leen di jaral fay wala def leneen joteeg sa borom kër. kon nañ ci bàyyi xel ci loolu xam ni waxuma xar mu ndaw sax waaye rey bi ci boppam sax ku ko mënul du santuñu la ko. kon loolu nañ ko xam bu baax a baax. beneen question bu oustaz mooy ki nga xamante ni am na ko ba war a tabaski su weer ba feeñee 10 jours yooyu ba fileeg tabaski ba nan la war a comporter lan moo ko war ci période boobu ba jour tabaski lan moo ko war. umu salama mu ngi nettali ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne xadis boo xam ne muslim moo ko solo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu weeru tabaski teroo mooy bu ñu séentoo weeru zul qaada ba gis weeru zul xijja maanaam ko séentoo ba gis ko képp koo xam ne am nga xar wala am nga looy tabaskee te loolu ngay tabaskee mu wóor la ne moom nga di nga tabaski nee na na nga téye sa bopp ci bañ a wat sa kawar ak kawar gi fu mu munti nekk sa yaram bu ko wat euh, bul dagg say we kon ki nga xam ne dafay waaja tabaski ci fukki fan yu jëkk yi maanaam bu weer wi teroo rek dañ koy tere mu dugal lépp lu aju ci wàllu taaral boppam wala defar boppam dañuy bëgg kay balaa weer wi teru kuy watu na watu ku daggawee na dagg ay weyam su ko defee mu li dess mu bayiko ko jour tabaski bu re ba pare mu soga wat wat bu fekke dafa bëgg watu wat wala fekk dafa bëgg dagat dagaat wee mu dagg weeyam waye fex reyagul haram dal bu mu laal dara ci yaramam ci lu del li kawaram wala ay ay weeyam ñu nag aada Sénégal da ngis koo xam ci jour tabaski ci bés ba ca julli ga lay watu te gis ñaan dañu dugg ci coiffure dem watu ji dañuy defaru loolu yëpp l'islam li sunna te ñu war ko top ci yonent sallallahu alayhi wasallam mom moy bu fukki fan yu teroo daal ñu bañ koo def bu ñu demee nag ba pare ba ñëw ñu soog watu loolu daal mooy li nga xam ne moom la islaam eh, santaane beneen bi ci beneen numéro bi moom mooy ci fukki fan yooyu itam bent bi daf cee santaane woor waaw doguma la bala ngay dugg ci woor bi mm-hmm. ndax da nga ne lépp luy ak yow ku ki rek nga wax de ndax bi jigéen ci xëy na dagg bi mais wattu bi concerné wu ko kon bu dee jigéen boo xam ne dafa war a rey fukki fan yu mujj yi est-ce que mën na ci lettu. waaw mun na cee lettu. Ah. ndax eh, wat la ñu bañ. ko d'accord wat bi ak daggawee yi la ñuy bañ. mais mun na cee lekk. ñi tabaskiwul tamit concerné wu leen. déedéet concerné la ñi mu concerné mooy ñii tabaski ki ki fas yéene tabaski comme ni ko Oumou Salama waxee. d'accord léegi koor gi. voilà koor gi eh, fukki fan yi nga xamne mo jitu wéru su feñé rek fo bo bes bañuy tabaski nit ki dafa war dafa war wor woor fekkee mën nako bok astaghfirullah fo ke mën na wor da wara wor woor fekkee mu ko forcé wu ko mais yende sallallahu alayhi wasallam na nit ki defalul yalla lu upp li mu koy defal ci fukki fan yu mujj yi manam nit ki li muy defal yalla lu mu koy defal ci fukki fan yu mujj mo upp lepp lo mën ta gis saxaaba yi ne ko bi ci jeexaat ci yoonu yàlla mu ne ko waaw waaw lu dul bokk joo xam ne dafa jóg ak bakkanam ak alalam yóbbu ko ci yoonu yàlla ba pare mu des fa mu ne kooku de moo ëppale waajooju mais su du loolu moom kiy woor ci fukki fan yooyu moo ëppale fukki fan yi njëkk yi ci tabaski c'est jour tabaski ba nag itam yow mii tabaski doo lekk doo xëy lekk mm-hmm. mais da ngay ànd ak julli ba bopp julli bi pare soo ñe ba rendi sa saxar wala nga rendi sa bey wala nga rendi sen nak wala ngeen rendi sen gilem bu boba nak ci ngay soga jël ci res wa nga commencé lek ci li nga xamne mom ngay tabaski bi. Ah, lol tam bëggoon naa ah, mu leer res bi rek mom nga wara doggé boy dog. no ci tabaski bi rek na lu mu parce que li nga tabaskee dal mun nga ci lek mom mun na nek res mun na nek ya mun na nek leneen res bi mom mo ci ëpp li ñu jëfandikoo. d'accord d'accord. kon boo ko jëlee ba pare nga soog teg leneen loo ci teg loolu leer na kon ñi ñi signalé ni waxtu waa ngi jeex xam naa oustaz li nga fi jot a wax du doy ci tabaski ndax thème la boo xam ne bu yaatu la euh, dañuy defaat beneen émission boo xamante ni am na yeneen question yu la war a posé incha allah Euh, su ko defee ñu xamal résumé li nga xamante ni wax nga ko fi rek. Mm-hmm. ki nga xam ni war nga tabaski ginnaaw bi nga waxee tabaski lii illa bi li ko waral ci suñu maam Ibrahima ba jamono jii ñu toll nii ñuy rey li nuy rey moo xam xar la wala bëy wala lu mu mënti doon. Mm-hmm. wax nga leeral nga fi aussi kan moo ko war a rey kon euh, ñi nga xam ne dañ ciy rey seen bopp te amuñu ko ñu bàyyi xel ci ne du farata ci ki nga xamante ni mënuloo ko. Mm-hmm. ki ka mën am lu mu ko jënde moo koy def. te ki ka mën sax te après mu nar a sonn après tabaski kooku sax santuñu ko ko kon loolu leer na naañ jigéen ñi toog aussi di bañ a tabaski di dépendre ci seen xaru borom kër wala doom yi dépendre ci seen xaru jur te mën ko nañ xam ne ñoom lu leen war la ñoom i tamit kon loolu leer na tamit ki nga xam ne mooy rey aussi di jours yu njëkk yi na bàyyi xel ci ne warul dagg we warul dagg karaw Euh, ba ñu tabaski ba mu rey ba pare soog a def li muy def kon képp defe naa ni ku ko war a ku war a dagg war nga dagg léegi nii ndax ñu ngi waaj a dugg ci 10 jours yooyu kon loolu am na solo bu baax u oustaz ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaanal yàlla njaboot gi nga bàyyi kër ga di la ñaanal tànk ñëw yeeg dellu yëpp nekk ay tuyaaba di dellu di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ni jàkkaar loolu ñuy seetaan seen émission jotaay diine sant suñu techniciens yi